la ilaha illallah la ilaha illallah la la ilaha illa allah la ilaha illa allah fa la ilaha illa allah la ilaha ilaha illallah. nee na bokki taalibe yi fi teew yëpp mi ngi leen di nuyu bu baax a baax si turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mu fiy jëmmi Serigne Touba di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ko wér suñu borom dolli kattanam aku wéram ba mottali naalam yëpp. ndax yitteem yëpp génn liggéeyal sëñ Tuubaa mu yëkkati kàddu nuyoo ak cant ak ngërëm di ko jëme si jëwriñam ji ki fi jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall di sëriñ am di moom sëriñ Modou Mbenda te tuddee ko Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall di teg nuyoo bi nag si jëwriñam yii ko fi teewal muy Cheikh Modou Moustapha mi fi teewal Serigne Fallou teewal fi Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng teewal ko fi moom it ba man mii di sëñ Dame ak mboolem rakk yi sëñ Moustapha yi fi teew yëpp kon Serigne Moustapha Serigne bi mi ngi lay yónni ak cant ak i ngërëm jëme ko si Serigne Amdi si liggéey bii nga xam ni santoon na ko ko te mu gatandoo ko ci mbégte bànneex bu rëy ak pëste bu kawe kawe nee na mbirum sëñ Tuubaa moom lépp day xar baax ndax boo seetloo njabootug Cheikh Ibra ku ko fi toogal rek dangay ngay yéem pësteefam ba booy xalaat sax da ngay jàpp ni kenn mënta ñëwaat ba mel ni moom loolu nag pàggu la moom. moo ko def ci ak njabootam ba ku gën a mujj rek gën a bëgg sëñ Touba ci ab taxawaay ëpp taxawaay ëpp pasteef ak yitte kon lii nu doon def tey rawatina si garab gii nu ko tàmbalee muy garabu xay tawfeex ju rëy da seene ndax Touba ñëpp xam nañ ni sëriñ Touba ko tudde garab ga sa àjjana wax ne Touba arasa allahu min kulli makrohin wa ma kon nag bu yàlla defee Cheikh Mouhamadou Mountakha ni ko kilifaam yu jëkk ya daa defee ndax fàttaliku ngeen ne si jamono Cheikh Abdou Lahad mas defee mu mag mu rëy loola yàgg na 77 la kon ëpp na ñeen fukki at kon bu ñu demee ba sëriñ bi corniche bii ñëpp xam nañ ni mu taxawee si dëkk bi mu am si yéene ju rëy ngir bëgg a yombal nit ñi dem beeg dikk bi bu yàlla defee si loolu nag mu gàttandoo ko lii tàmbalee ko lii si garabi xay yi garabu xay nag Serigne Touba toogoon na sa njaareem si mujj gi di wax ne yàggadi wu ma fi de ndax lii firnde ji Abdou Samad Sylla mii maa tuddoon baayam tudd ko garabu xay giitam maa ko jëmbatoon ci sama loxo te maa ngi toog si kër gi këram kon nag bu yàlla defaatee ñu indi garabu xay tàmbalee ko liggéey bi mu war a wër corniche bi waaye ab tàmbali rek la nag waaye kenn xamul fu muy yem kon loolu taw feex ju rëy la ñu tàmbalee ko si weer wii nag nga xam ne weer wu Sëñ Tuubaa fonkoon la mu weeru Muharram bari na loo xam ne si la ame si la xewee bari na loo xam ne si la ko Sëriñ tubaa defee si dëkk bii kon nag loolu bu ko sëriñ bi tànnaatee tàmbali ko si tawfeex rek la ak bëgg a dimbali taalibe yi rek ndax nit ku ko bëgg a dimbali da nga koy liggéeyloo rawatina yéen ndax nee na suñ lépp liggéeyal suñ Tuubaa la moo tax xam na ne sëriñ bi bu nu doon yërëm dana nu yërëm ndax xam na ne sonn nañ noppalu wunu guddeeg bëccëg waxtu wu ñu ngi dàkk ndigalu Serigne Touba rawatina nag bu nu digalee nu dara si sunu bopp lépp jox nañ ko sëñ Touba kon nee na mi ngi ñaan ci barkeb sëñ Touba tawfeex ju rëy jooji nu am yàlla na nun tabbalaale si biir nun ñëpp nag ñun tabbi si biir nee na Serigne Moussa da koo gërëm te yàlla def itam fekk sëñ sëñ sëñ sëñ Basiru bëggoon na jot li ngërëm yi ndax bi sëriñ bi yëkkatee liggéey bi da koo jox ndigal waaw jaarale ko ci mu woo ko wax ko ko boole koog man mii waa si ne ko li mu séntu woon si moom defe na ko nu kawe sunu njortu sax nee na kon sëriñ bi nee na mi ngi koy jotil ak cant nee na cantuk sëriñ bi ndax sëriñ bee ko dénk ab liggéey mu siy def yitte ak pasteef akub taxawaay rawatina lii ma ko si defal jërëjëf Mbacke kon sëñ Moussa sëriñ bi ne mi ngi lay sant bu baax mi ngi lay sant bu baax Cheikh Amadou Bachir sëriñ bi nee na li sëriñ bi mujjee lay tontu ba noppi nee na gor soo xam ne bu noppaloo du sonnati ba faw nee na soosee gor daal Mbacke lu mu sonnal yàlla doyut te coonob ñi ànd ak sëñ tubaa tem nangul leen seen ruu rek la àndal ruugi la àndal lu mu metti lu mu tartar bu ruuga dañee rek coono ba dañ te ba faw nag kon nag Cheikh Amadou Basir nee na say waxi sëñ Basiru daa saf xorom si murit yi day sunu bànneex nee na su doon lu ñuy takkamtiku. du doy si nun fi nga jaaroon lay jaar moom itam. na fi nga jaaroon lay jaar moom itam. ndax da maa yónni. ndax da nga koo yónni. da nga maa yónni. da nga koo yónni si Serigne Fallilou. bëgg mu jaar si ay kilifaam yëpp. jaar si ay kilifaam yëpp. kasa jëkk nag mooy. sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng moom Cheikh Modou Moustapha. mu teg nuyoo bi si loxoy jëwriñu Cheikh Rafal ji. moom itamit mu tegal nu ko si jëwriñ Serigne Touba ji wala nu tegal nu ko si sa loxo yow Cheikh Amadou Bassir nga tegal ko ko si loxoy jëwriñ Serigne Touba ji ne ko alhamdulilahi rabil alamin lan waxoon nun Baye Fall yëpp boobu baat lan waxandoo nun Baye Fall sunu borom si liñ fekke lu bari si tàmbalib Touba ndax lépp Touba rek taarix la te bari na si yu nu fekkee benn si benn boobu yi Serigne Touba Serigne Abdou Lahad Mbacké si ama salsasin woote woon na njëmbat lu yaatu Cheikh Amadou Basir fekke na ko moo tax man koo nettali euh, lenn Touba lu ne taarix la mbeddi Touba yi taarix la ndoxum Touba taarix la lampi Touba yi la yooni Touba yi taarix la marché Touba bi wala marché Touba bi Touba yi ay taarix la nu mbedd mii sëriñ bi wax taarix la ma ko jiitu taarix la mi topp si mii lépp Touba daal taarix la yu si bari nag sunu borom baaxe nanu ban fekke ko loolu alhamdulilah rabbil alamin ndax ku fekkee tàmbali bii ba nga xam ne ba keroon nuy wal bufte bi loolu mbakke du dañ fekke na woon naa ko ji ndam lay doon si am murit nga xam ne soo ko seetee dañ naan tey jii moom ku yaakaar ku sa yaakaar nekk si sëñ Touba ku ne war ngaa teew Touba wala nu teewal la Touba ndax sa teewaay bi yow si Amadou Bassir yaa taxawal jëwriñu Serigne Touba ji waaye yaa fi taxawal nag jëwriñu Cheikh Rafal ji ndax nun ñu ko fi taxawal yaa taxawal kon Cheikh Amadou li nga wax si Touba bari na lu si ne la say njëriñ noo ngi ñaan sunu borom yàlla na si boole Cheikh Amadou Bassir nu ànd moom loolu nga bëgg nu tàbbal la muy taw tawfeex gi. yow nee na yow tawfeex nga loolu li ñuy ñaan loolu ngay ñaan Cheikh Ahmadou Bassir moom nga far yow waaw jërëjëf Fall ah, waaw jërëjëf sëñ Jili sëñ Ablaye mi ngi taxaw buñ nee kuy waar wi duñ nee ko waar wi tudde ko ab rek tax ak waaw nun ñi laabirul waaw waaw sëriñ bi nee na dafa laabirul waaw nekkoon sëñ bi du wax waaw waaw danaan kon teema ko waxal ndax xare bu tol nii ka nga sa jiital wala ña nga sa jiital loo say def lu ne gannaaw ak doye tax nga teg leen fa bu dee waxa wax loo bu dee jëfa jëf loo leen moo tax sëriñ bi nee na warutoon a wax warutoon a jëf waaye yërmande ji ñu am si sëñ Moussa bëgg koo noppal si lu ne moo nee na moom itam lu ni toll la am si nun kon si Amadou Basir nun murid bor bi ñu ameel sëñ Basiru nee na waxoon na ko waxoon na ko sëñ barki dem nee na ku dajeeg yow war naa jëflanteeg yow war a waxanteeg yow ndax li nga ko ameel noo ngi ñaan sunu borom si daraje liggéey bii nu tàmbali saw fan yàlla na gën a gudd sag wér yàlla na gën a dolliku yàgg képp koo bokkal pas-pas waaw bokk nee na googu ñaan sax moo gën a matale sëriñ Abdou Lahad Ka nee nun murid yi nee na yow tamit lii la jëw riñ ji dénk muy jëwriñ sëñ Tuubaa ji yàlla nga ko yóbbu fa ko gënal te mel na ko gënal nee na suñu sedd na si yow ne dégg nga li ma seere si Cheikh Amadou Bassir léegi taxawaay bi la doon defloo mu bàyyi ko si Serigne Touba lépp nga matal waaw waaw mu des nag borom laxasaay yi taxaw te tàmbali li nu tàmbali yàlla na xàgg ak te nu jëriñoo ko waaw te te jëriñu si ah, nan nan ko jariñoo te jëriñu si waaw waaw nee na sëriñ bi daa bëggoon nu wax ko ne ko rek li mu nu yónni dana àgg fa mu jëm bu sooy loolu dong lañ bëgg. sëriñ Falilou Fall nee na mi ngi jottale ay kàddoom. di ko jaarale ci sa jëmm ji Cheikh Moustapha. mu dem ci Cheikh Mouhamadou Bassirou mi nga xam ni. mu ñëw ci Cheikh Mouhamadou Bassirou mi nga xam ni. mooy jëwriñu sëriñ Touba ji fi teew. mooy jëwriñu sëriñ Touba ji fi teew. yor kàddoom. yor kàddoom. yor kàddu yoonu murid yëpp. yor kàddu yoonu murid yëpp. te murid yëpp bëgg ci lool. te murid yëpp nee di ñaan nag ci darajee maamam ja liggéey bii ko Serigne Touba di liggéeyloo. liggéey bii ko Serigne Touba di liggéeyloo. nee am am ci ay ndam. ba Bassirou nga yàgg koo def lool. nuk lu ko Serigne bi bëgg nag. nee lii nag moom. misaalum àjjana ma. misaalum àjjana ma. la Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké delloosiwaat. dëkk bi dëkk bi. turu garab la gu nekk ci àjjana. turu garab la gu nekk ci àjjana. billaahi loolu wax ci ñëwagoo. muy muy muy Touba. muy Touba. kon bu sëriñ Mountakha jëmbatee garab garab gi. kon bu sëriñ Mountakha jëmbatee garab yi. di ko yeesalaat. di ko yeesalaat. ngir jëmmi tur woowee. ngir jëmmi tur woowee. nee ñun ñëpp suñuy xel dal na. suñu yaakaar dolli ku baax a baax. nee ñu ngi ñaan lim ci bëgg moom. sëriñ Tuubaa defal ko ko ci. waaye li mu bëgg ci waaye nag moom it li mu bëgg ci murid yi. yàlla na Faal defal. nee ñu jekku ndigalam yëpp nag yàgg ko liggéeyal bu baax te ànd ak ngërëmam ndax loolu rek moom la ñuy wut nee bu amee ngërëm am nañ liñ taxoon a jug kon yàlla nañu am ngërëmal Serigne Touba te ko Cheikh Ibra Fall Serigne Abdou Ka ah, Serigne Fall nee na mi ngi nuyu ci turu Cheikh Mamadou Bassirou ak jëwriñam sa borom defal la jàmm defal la ak yokk defal la ndam ci liggéey bi nooyal xoli mbindeef yëpp ba lii la Serigne di liggéey loo ci yow ñu nangul la ko te nga ànd koog ñun te mu yàgg lool nee na suñ xool seet na bu baax a baax sëñ Modou sëñ Basirou sëñ Fall nee na mi ngi ñaan lin amul lu dul moom nga nangul ñu ko ca téyel ñu ko muy ak taalibe ak taali bi rek ka fi nekk leneen lu lu fi nekk day mel ni àdduna rek la loolu fi koy bàyyi duñ ko yóbbaale taalibe gi moom fu ñu ñu nag moo may ànd ko bàyyi ginnaaw mukk te luñ am ci baax tey baa am ko ëllëg nee na ci ak taalibe leen ko mën a jëlee kon dimbali ñu nungul ñu taalibe gi te wéral murid nag te man lépp lépp lu Serigne Touba bëgg yàgg koo jëfe lool liggéey bi nag sedd na xoolu murid yëpp ni ñu ko tàmbalee tey jii nii ñu ko tàmbalee tey jii bismillahi rahmaani rahim yàlla na àgg ci alhamdulilahi rabbil alamin te àgg foo ko bëgg nag yàgg sa jëwriñ yëpp ci barkeb Sëñ Touba Seeru Fall Seex Musaa xam naa wax ji matoon na waaye sëñ daam da koy wax ñii ñu ko boole doon seen taxawaay ci lépp day dem nag ndax bu ngeen ko jëfoon duñ leen ko wax am nañ fut am nañ am fut la li ngeen def rek tax sëñ daam di leen seere waaw nee na dem bi fi ñëwee danoo fekk ngeen tàmbalee gas fekk ngeen tàmbalee gas bi te bëgguñoo taxawal liggéey bi te bëgguñoo taxawal liggéey bi waaye gis nañ leen waaye nag gis nañ leen gis taxawaay yëpp gis seen taxawaay yëpp Pastef yi. Pastef yi. ak ni ngeen bëggal Serigne Touba bëggam gi. ak ni ngeen bëggal Serigne Touba bëggam gi. waaye yéen tam. waaye yéen tam. li seenu bëgg. lépp lu seenu bëgg. yal na leen ko Serigne Touba defal. ci barkeb Serigne Touba nag bu baax. te wér bu man bu baax. mucc nag. fu bëgg a àgg rek fu ngeen bëgg a àgg yàlla leen fa Seex Rafaal yeggale yéen ak mboolem ñi ngeen ko bokkal barkab sëñ Basiru Mbàkke mi taxaw Faal sëñ Basiru ñaanal la ilaha